bismillah bismillah salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire maay dellu siwaat nii tey euh, incha allah ñu fas yéene defar nag beñe tey incha allah dafa am benn beñe boo xamante ne que euh, beñe roulade laa ko tuddee koko la ñuy rouler ci biir moom la ñu fas yéene indi tey incha allah ci kàttanu yàlla euh, suñu ingrédients yi ñuy soxla gis nga ni suñu bool ñu ngi fii ak suñu farine. Eh, ñaari kopp ak genn wàllu farine ngi suñu muscade bu ñu xoos li ñu gis ni brown sugar la ku am suukar bu weex bi tuuti rek tuuti rek lu tolloog eh, ñaari kudd yu mag lii ndax meew bi tamit lu tollook ñaari kudd yu mag moom laa def foofu léegi gis ngeen nii suñu orange bu ñu xoos a ngi nii eh, kii suñu tuuti xorom la lii bicarbonate de nu mu tudd levure levure pâtissière bi la li euh, levure boulangère bi donc euh, levure bi moy levure bondé moy grain yu sew yooyu di funkil pat bi li euh, levure normal bi la ben sachet ak li tuuti xorop li ben nen lañ ci fas def inshallah gis ngeen suñu beurre bi mi ngi ni ak it suñu mew Gloria donc li ñuy def ni yi lañuy bolé yépp jaxassé jaxase waaw yii la ñuy ni nii daal di jaxase ba mu jaxasoo su ko defee ñu daal di jël suñu nen toj ci boole koog bër bi ak gloria bi. ak ah, bismillah ñu dellu si ñu dellu si gis ngeen noonu ñu ngi jël suñu meew bi def ci lu tolloog euh, genn wàllu kopp voilà toj nañ ci suñu benn nen bi léegi gis nga ni bër baa ngi ni moom it ñëw na léegi lii la ñuy jaxase ba mu nekk pat pat bu nooy boo xamante ne dañ ko mën a dër parce que li dañ ko war a dër su ko defee après ñu jël fële suñu koko. Euh, daal di ko euh, defar moom tam laal ci tuuti suukar rek ak euh, tuuti ci suñu zeste orange bi rek tuuti muscade bi su ko defee bu ñu dëree ba pare ba dagg ko nag koko bi la ñuy farce ci biir daal di ko rouler mu nekk bañ a roulaat daal di saf incha allah bismillah bismillah mbokk yi ngeen ni farine bi wàqi nañ ko nii ngeen gis ñu jël benn nen bi gis nga ko nii def ci ak suñu beurre bi ak meew meew gloria bi léegi lii nii moom la ñuy boole. def ko ba nga xam ne day nekk benn pat boo xamante ne dinañ ko mën a dër donc pat bu nooy lay doon du doon pat bu wow kongu kongu kongu mais du nooy nepp nepp nepp tam ba ñu mën ko dër rek ba mu nekk loo xam ne dañ koy dër Eh, bismillah bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñu beñe yaa ngi ni pare na gis nga mi ngi ni nooy nepp nepp nepp macha allah gis ngeen ni boole kook sa café gu tàng pëndaxu meew laa wis nii ci kaw ku mu neex nga wis ci sa pëndaxu koko ku mu neex nga wis ci sa suukar lu la neex rek lu la neex mën nga ko ci def mi ngi ni nekk ay beñe yu nooy nepp gis ngeen ko ni nepp sax macha allah ci tàngoor bi nag lay gën neex ba pare bëriwul suukar gis ngeen tuuti suukar boobu ñu ci laaloon noonu moo nekk noonu gis ngeen ko nii donc euh, suñu beñee koko roulade mu ngi nii lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah di leen wax ngeen essayé ko ñi bëgg beñe yi beñe yu neex la neex na ndogo weeru koor neex na pour jox sa ay gan neex na neex na neex na ayo bismillah lii lañ indiloon tey fii ci saveur planétaire Marietou salaamaaleykum